waaw suñu koñ moom lu am solo nag suñu koñ daal c'est lu am solo la. sa dëkk ba. waaw euh, yow foo nekkoon ci dëkk bi ah. foo nekkoon maa bi. <laughs> fan ci dëkk bi. sa <laughs> mère léegi da ngaa jël sa yoonu bopp de. mosuma yow est-ce que xam nga ne man dama laa gëj a auditer sax. mosuma jël sa non non si si si. yoo xam nga ci li ma ne. non ah, li nga nekk non li nga nekk noonu laa la bëgg a wax. waaw xam li ma ne donc. Euh, nekk la wax. nekk nii kay jël nga sa yoonu bopp. dootoo toogati weekend sax ne xaaral woo grand Euh, léegi daal màgg nga. déet waay. li Omar Ndiaye naan les enfants ont grandi. ont grandi tu as grandi de. déedéet kenn yow. sañoo loolu de sañ Mame Mbaye monsieur le maire xam nga du ma def lu la ëmp. Mame Mbaye ñaa moom anamu moom la ñëpp di laaj. ak Mame Boye Diao. non ñooñu moom ñooñu duñ fi dugg. Déthié Fall nag mën naa dugg. Euh, Déthié Déthié aj naa ko ci kaw. mën nga ko bàyyi muy fii. voilà waaw dama koy dugal mais mais mais kiiwul dama du def audio. ñu xool daal. lu def audio de. dañ ko bàyyi daal mu xool du def audio du bind. na suivre xool règlement intérieur. voilà voilà damay xool fan la jëm ko hmm. damay xool. ajaratu ay dañ jox nag day dugg. non day mujj génn nag. ndax la waaw nañ ko delloo xaalisam mais sponsor yi dina ci génn. Ah. waaw parce que tànk yi mu jógte daal ay tànku fekk ma ki la. baa du xeeñul neex. de ah, ah la ah, <laughs> en tout cas daal ku fi dem ci tonton Jogay moom ma génne la groupe WhatsApp. groupe whatsapp bi moom. ngi dal gëm sa bopp moom mi ngi mi ngi ci. ah kooku de waaw ah, mi ngi ci nag mi ngi woon ci. kooku de mi ngi woon ci ah, ah, Kaolack. waaw mbay mi xanaa seeti baykat yeex jaaykat gerte bi ñu jox image yi ma xool fu mu demoon ci mbay. mi ngi woon sa def naa jaaykat dem na seeti jaaykatu gerte yi xool na seen i jafe-jafe. bàyyi li ah kay. ay ay ay photo jot na ci yëkkati kàddu sax MD da bu la ko bëggee jox jox la ko. xanaa mu jël ah, jot na ci yëkkati ay kàddu. waaw jot na see wax def na ci def déclaration. ah bon ah. Ah. noonu la réew mi faw ngay dem nag fa muy fa muy méttee fi wi eh, di ko dundee nga wax ci. <laughs> loolooy dëgg de. mooy yoon sax ah moo nekk nii. gis nga ko kon. gëm sa bopp. wax mi ngi nii de. baykat ya. mi ngi nii wallaahi. gerte gaa ngi nii gerte gaa ngi ñu jàll. waaw waaw waaw waaw waaw waaw. Mhm. danga lekk madame a ngi ne ci ginnaaw. madame Thiam ak a fidèle. ah <laughs> ah ngi nii ak baykat yi. ndax baykat yi. ah seko yi seko yi. ah doom day non moom moom dugg na moom. Dani Gueye moom ah, moom ngeen dugg na non dugg nga. ñi dal gëm sa bopp dugg na non non non. amul benn problème la doon tooñ rek Gueye waaye dugg nga de. dugg na kon ci groupe bu ko neexee WhatsApp bu ko neexee vocal. waaw ah mi ngi nii di vocal. kon mi ngi ci groupe WhatsApp bi. mi ngi nii di vocal lii. kon kay jeex na. man kay ko dugg nag ma nuyu rek. en tant que administrateur. ajaratu ay dëmbooj tam. waa ay yoo. moom ngi ci biir ay dëmboojam ci biir day bind message di audio di vue di lire. Mhm. waaw moom autorisé nañ ko tout avec un grand T. ak Bamba Fall. ak Bamba Fall waaw ak Barthélemy Diaz. Barthélemy Diaz. ak Ousmane Sonko. Tons Daouda Niang tamit. waaw non Tons Daouda Niang mi ngi ci. mi ngi ci. déggoo ma de. ak ah, Khalifa Sall. ak ah, Khalifa Sall mi ngi ci. ah naa nga léegi. mu ne. aatuma ah, réeroon. non non non feeñ na bu yàgg. <laughs> caamiñu vénitien boobu. ana ñu ñu at ci kaw ak Awa Ndiaye ah. ana ñu ñu at ci kaw non ñu ñu ci kaw ñu ngi ci kaw ba tey. <laughs> kay ku fi kii moom soo yi. yàlla baax na ñu doon fi wax yéen kaay groupe des médias. ma kii kay ku fa dem génn groupe whatsapp bi. <laughs> le groupe groupe whatsapp kii fait le buzz là. te doo bàyyi tonton. nga bàyyi ko rek tonton ma mel ni bi tonton dafa wax dara lu leer nit ñi. ana élection kañ lañ koy tëgg. Mahmoud Saleh nee na deux mille vingt fin bi. man ne maa ngi doon xaar mi mi deux mille vingt et un sax mars avril yooyu. Macky daal mooy taxaw di xaar ay nitam pare mu defar li muy pare yëpp ñeneen ñi nag bu ñu parewul seen affaire la mais moom day defar lépp ba mu baax. ba pare xoolal doog a dem ci ay élection Macky à part élection. Mhm. présidentielle amul élection bu mu bettul gars yi mais comme que nag jàpp na ne opposition amatul ndax na boppam. am na ñuy opposé waaye yow ma gis nga ñoom Idriss Seck ñaata la ñu amoon. ça c'est clair du 26 pour cent. Mm-hmm. ci presque 27 euh, euh, présidentiable xanaa loolu ku ne 1 pour cent la. Mm-hmm. moo tax seen jàngalekat bi naan Idrissa ñëw na ak 26 pour cent plus suñ 58 pour cent bu ko defee ñun dinañ am 84 pour cent. wallaahi baadu aas. wax waxi caaxaan waxi dof. yow Idi nga xam ni ana ko ànd ak Idi. <laughs> yàlla baax na. waaw waaye dañ leen dem rek. tribune yéen a kaay ñëw ci. lu mu wax Mahmoud Saleh. Mm-hmm. Mahmoud Saleh eh, allahu akbar eh. jaay na leen de ndax Mahmoud Saleh nee na Abdoulaye Wade ak Macky Sall xoolal ñu ngi waxtaan saa sune ci suuf en contact permanent la wax permanent ñu ngi waxtaan saa su ne ñoom ñaar waaye yéene kaa gi nee gis nga ñoom ñaar ñii bañ gisee Masalikul Jinaan ba pare gise palais mais xanaa kon waxtaan ba juboo da cee amoon. wax fa dëgg. bu juboo amoon kon nitu Ablaye Wade danañ dugg ci biir gouvernement. kon tonton daa dem seeti ko. oui Mahmoud Saleh nee na keroog bañ defee élection présidentielle ba pare. ci la Idrissa mhm. Seck di commencé di jokkoo ak Macky boobee ba léegi nag. Mhm. boobee ba léegi. élection locale yi nag Saleh nee na ah fin deux mille vingt et un biir mhm. deux mille vingt et un bi daal élection locale yi kon dina am. donc yàlla na am rek. génération sacrifiée. ci yéen a kaay des médias gi mooy ñëw Ismaïla Kambi nee na gis nga Macky. benn faluñu ko ngir muy ak ak ngir muy toog ci suñu calendrier républicain bi. Mhm. Macky Sall faluñu ko pour muy réduire l' opposition à sa plus simple expression. mais réduire la souffrance de Sénégalais à sa plus simple expression. loolu lañ ko soxla loolu lañ ko soxla Macky Sall faluñu ko ngir mu mu mu mu mu mu. jafe-jafe askan bi daal mu ci ak saafara. Ah, waaye du defanteeku ji. oui ak ay élection Ismaïla Kamberé xanaa xamoo dialogue national bi bettul kenn. Mhm. guntu sarale la ngir warkat yi mën faa jaar pour dugg rek déggoo présidentielle 2024 Cheikh Oumar Anne nee na mii Macky Sall troisième mandat mën na ne. Mhm. parce que bu njëkk bi bu ñu ko calculer 2012 Bougane Gueye Dany nee na mafia bi opérateur yi nekke boo sàgganee moo nar a yàq moo nar a yàq euh, euh, gerte gi. Mhm. président Macky Sall nag war na cee dugal loxoom boo bëggee dégg. na ci wax dégg Sud Quotidien nañu. Mhm. Idriss Seck day dàq na Déthié Fall. vice président bu réew mi Idrissa Seck ci boobu nga dàq na ko. lu tax source a lu tax <laughs> dafa ne Macky kat na eh, eh, eh, vision passé jam ñaajo. alors ko fi waxoon. dégg source a ñëw ñun ci Cheikh Oumar Anne. Mhm. wax na ci wàllum troisième mandat bi jaaram ci assemblée nationale. Mhm. enseignement supérieur yu bëree bëri ay dem nag dal na ci kaw ju saar bi. wàllum corona gi feebaru nappkat yi. yu yu yu bëri. ayda moom assemblée la doon xewee. ayda dafa am fula sama groupe whatsapp bi la bokk. <laughs> fii ñi fi bokk yëpp dañoo am fula. dégg l'observateur ñëw ak ñun ci Macky ak Idi. Mhm. ku ca ne ak la nga war a def. dégg nga nan la njiital parti réew mi sacrifié numéro 2 mhm. waaw mais Déthié Fall nag dafa weddi sa Seck. mu ne ko. da koo weddi di laaj ma lu Idi wax. lu mu wax. Idi moom la mu jàpp mooy digganteem ak Macky kenn du ko yàq te Déthié Fall li ko merloo mooy li ñu ko deful ministre Déthié Fall ne c'est pas vrai je n'ai jamais été demandeur ni d'un <laughs> poste de député ni d'un de ministre auprès de qui que ce soit. Hmm, weddi na ko. Idi dafa ne Déthié dafa mer. mburoog soo bi kenn du ci këpp suuf. non non mburoog soo bi kay neex ku ko jéem a xajamal. idi sepp la soo bi moom kenn kenn du ko ñuulal mm-hmm. waaw kay dégg nga idi def ne liñ ko deful ministre moo ko naqari Déthié Fall du dëgg mosuma sàkku sax nekk député mosuma sàkk nekk ministre ci wetu kenn nag du makki diw idi xanaa mm-hmm. déggoo loolu waaye ne yéen kaay Cheikh Omar Ndaw bi ne xam nga li jaaxal nit ñi ci Idrissa mooy Idrissa saful yàpp saful jën mm-hmm. parce que moo doon naqarlu muut mbaa mottu ji ah tey ci boppam nag moo indi muut mbaa moot dégg na ko mot moo mot moo ma gënal moo moo ma gënal. mot moo ma gënal muut. muut mi ngi nii. àndandoo dee wàlle. dégg nga loolu. Mhm. libération yéen kaay ñëw ak ci mbóot mi am ci conseil économique ak ndàmpaay. lu fa xew. comme nii nii rek amul yokk amul dara. Mhm. un million deux cent. xoolal fu mu jëm simple conseil moom lay am. un million deux cent. te Abdoulaye Daouda xam xamle na ne waaye conseil économique yokkal nañ leen. yokkal nañ leen conseil yokkale bu ñu leen de. ñuy fayee ko un. un million de de un million deux cent. donc waaw bu ñu leen yokkalee léegi fu ñu jëm. kañ lañ siy jot si genre yooyu. dégg évidence yéen kaay ñëw ak ñun si Cheikh Omar Anne troisième mandat beeg lam ca xalaat. Mm-hmm. tout de Fall la ngi nii. mosul yelewaan kenn apos. le soleil yéen kaay ñëw ak ñun ci corona bi rek na nit ñi de. 37 344 emplois ñoo xam ne ñoo ñàkk seenug liggéey. fanweeri junni ak juróom-ñaar rek ñetti téeméer rek ñeent fukk ak ñeent. nañ mooy tuddee. xoolal professeur Souleymane bu ci Covid bi nee na Sénégal war naa préparer deuxième deuxième vague. mar d' état dégg nga le quotidien yéen kaay ñëw ak ñun ci code peñ bi nga xam ne nag moom la Idriss Seck doon dëccee. Mm. dégg nga na du ma nangu mukk mburoog soow mii. ñu koy xajamal ku koy xajamal. ñu ci këpp suuf mi ngi nii. inacceptable que mon entourage tense le président moom kay ku bëgg a moom fi nekk nii Idi moom ku bëgg a nekk ci moom Idri euh, euh, Macky. soo ko xalamal daggal ko juróom-ñaari maamam rek. nga nekk Sénégal jëm kanam mi nii. dégg nga hmm. dégg nga laas yéen kaay ñëw ak ñun ci Serigne Modou Kara daaraam yi mu teg gendarmerie bi ci boppam. Hmm. Euh, expliqué na ay musiba yoo xam na ñoo am ci biir. ci biir ci biir ci biir. ci bi. waaw enquête yéen a kaay ne grave scandale la. Mhm. trois cent cinquante trois yoo xam ne dañ leen a libéré ci centre sëñ Modou Kara yooyu. ah gendarmerie ab escouteur la doon wër de far dal ci musiba mbaaba kumba bi. ñeent fukki doomu aadama ak ñett jàpp nañ leen. dañ leen tëj foofu. réseau bi wàllu daanaka njaay jàmm. Hmm. ñoo xam ni xiif ñu tëj leen ci biir maar day taali waaye ñu ànd ak sëñ Modou Kara weddi nañ ko. ba tëdd ca suuf. li moom yëg dégg nga waaw. direct news ñëw ak ñun ci deuxième vague bi en téléchargement. ah déet waay. Macky Sall moo tiital nit ñi. tal nañ leneen dul deuxième moo tiital nit ñi ba pare nag xoolal moo mu ne ki nga taxaw. wax fa dëgg moo ko fi njëkk a wax nañu jàppale rek. te seetlu nga Macky Sall waxatul léegi ak nit ñi de. ñooy waxal Macky daal léegi ay tiwitam la yor. Twitter dóor ko gars yi ne pat. connexion moo bari. mais. am na connexion portable yomb du fay internet sénégalais nag njort gu ñaaw ci boppam la ñu am ci corona bi nga xam ne ñu ngi yéeg dégg nga mhm. dégg nga ñëwal vidéo bi waaye Pape Bouba Diop ndem si yàlla gaa ngi Idrissa Gana na ci moom seede gu seede gu seede gu mag waa ju baax mhm. ubbeeku jox cër nit ñi moo fi jugee mhm. suñu sóor bu mag bi sa waay génn na àdduna Pape Bouba Diop a ngi nii mbégteem coupe du monde keroog cay keroog suñu coupe du monde Pape Bouba Diop marsam bu mu jubaa nii allahu akbar ci waay Pape Bouba Diop waay ndeysaan yàlla moom bu yàlla xare àjjana waay bi jaay yàlla moom bu nammee moom te mënu ci dara cay waay jëlee cay waay jëlee yàlla baax na yéeme na lool nag yéeme na lool li mooy àdduna nag li mooy àdduna de àdduna léegi nii rek 42 ans xajoon na fi dama 42 ans lu mag la doon na fi. doy na waar. yàlla bu ne waaw ku ne dee da ngay sonal sa bopp. bi ñu koy jaale ñëpp nag. yàlla xale ci àjjana gën a ko fee mu dëkk sa HLM. ñu leen koy euh, jaale ñoom ñëpp. yàlla baax na. ay jëm monsieur le maire. aywa tey moom dañu koy seddal. Ah? tey koy seddal. tey xanaa. Euh, njaab bi. non njaab bi kay tey dafa triste ndeysaan. <laughs> fi ñu daane fi daane la. Ah? mais noonu la fi ñu daane le waaw fi ñu daanelee la. dafa dafa yéeme yàlla xare ci àjjana yu gën a. waaw waaye élection daal dañ ko tëgg. ah waaye élection jàpp daat. neex na xare la dinañ ko tëgg. bëri Macky dafa waaye Macky xam na nitam yi nekk ci gox yi. te xoolal local yi bu jotee day wàcc di dem di dimbali. dem battre campagne day dimbali ji ñenn bi renfort dem naan ay visite de courtoisie ay visite économique. <laughs> li ci kanam raw li gën. duñu daara <laughs> maire yëpp dinañ leen gagné. yàlla baax na.